àq ba leen baal ma ñu ne ko Mbàkke ci yar bi suñu mu ma dun Muhammad Safa ci taalibe ak murite gi mu ne ko ci naka Makka ak yar bi mu ne ko am na ak mu leen yore mooy àq mbëggeel ak àq toppatoo ak nit lu war diggante waajur ak doomam waaye bëgguma leen toppatoo ma leen mhm. ndax dama amatul place mu bëggee keneen bëgg naa lépp yonent bi sallallahu alayhi looloo Cheikh Ibrahim wax radiallahu anhu mm-hmm. ñu ngi nettali ci wayam boobu mu ngi am boobu maa fi maa fi qalbi ghazun li ghayrihi mu ne sama cër bi amul beneen cër fekkoon benn cër la yonent bi jël na ko fekkoon fukk cër la yonent bi jël na ko fekkoon téeméer cër la yonent bi jël ko mu ne su dul sax man xawma ko man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 بحب رسول الله تالو مدينتي على المدن والأمصار والخير يحدث إنني قبل البرايا حبه شغل جناني فهو أكلي وشرابي وهو ديني وجناني فهو أكلي وشرابي وهو ديني وجناني صلى الله عليه وسلم وهو غني وأميني وأماني ورفيقي وطريقي وجوادي وسناني la ilaha illallah la ilaha illallah waqaftu ala babil karimi muhammadin وقوف حزين القلب حيران مكمدي وقفت على باب الكريم محمد وقوف حزين القلب حيران مكمدي لا إله إلا الله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 bi la tërëndoo ma ngi nii toog tërëndoo faaw muy mm. ma daal di jox neen nga daal di ah suñ tërëndoo faaw mu maye nag loo xam ne dañ koy def chaque jour la mënul ñàkk Mouhamed ah, dañuy bàyyi rek moomoo waad moomoo très rapidement comme ni nga doon def ak internet yi rek man dama gis nag ñu bëri di ma envoyé message di ma bàyyil seen numéro ci suuf <laughs> euh, nañ dem ci page bi directement ci Facebook bi maye bi man mënuma ci dara de <laughs> ay defe naa ni xol yi xol yi sedd na. parce que euh, tey ñi ñu fi dalal euh, ñoo ni mel bu ñu fi dalalee euh, sëtu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam defe naa ni wàcc nañ. buñ fi dalalee itamit ay damu bàyyi defe naa ni wàcc nañ ndaxte comme ni ko sunu sang bi waxee léegi maam Baye Niass. moom it cheikh al lépp ak yonante bi la booy xoolee sunu borom sax tëralee na ko loo xam ni. Euh, defe naa ni ñi euh, mu ko cëralee bëriwul parce que moog yonent bi li ñu rawantee ci ay fan bëri ci ay at bëriwul kii 63 ans la judd kii 75 ans la judd loolu defe naa ni cofeel gi mu am ci euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu borom euh, cëralee ko lu mel noonu dañuy dugg ci page Facebook bi muy Sen TV l'officiel parce que actuellement waa Kaolack ñoom ñi ngi kontaanee bu baax a baax a baax euh, jotaay bi rawatina waa Léona Niassène ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar donc dañuy dugg ci page Facebook bi bu ko defee ñu def comme lañu daan def rek. 250 mhm. 000 la ñuy tàmbalee maye guddi gi jar na ko sama turandoo jar na ko. donc yaa oustaz jar na ko. sunu sang bi. biir màkk bi lay xaar waay. biir màkk bi. waaw. day des ci nenne rek. Cheikh Cheikh Omar Seck taalibe Baye Niass moom fi mu toll nii moom toogatul taxawatul. Eh. moom nee bu ma nee parce que biir bi moom mi ngi fi ba pare. waaw diggante Mouhamed ak Aïcha. bu détail bi moom eh. génneel billet yi. bi mais génneel billet yi. diggante Mouhamed ak Aïcha. Eh. ak Xafsat. tey de man ak yow ñuy buur. foofu laa waxee de. waaw bi moom. bu bu bu soxna Aïcha bëggee rek moom bëgg na. te te te moom. waaw ak soxna Absa waaw te moom te moom. <laughs> waaw moom way na suñu tëraloo. Eh. soxna yi. moom rek moo ci woy suñu torondoo déggal loolu Seydatuna Aïcha <laughs> <laughs> moo tax kon xam naa bala guddi gee jeex bëgg nañu maye kon billet Màkka bi parce que billet bi mu ngi fi euh, dañ doon xaar bis bu rafet rek pour euh, jox ko ñi nga xamee ni ñoo di internautes yi ak téléspectateurs yéen it ci ngeen bopp yéen ñuy toog di seetaan seen ay kër mun ngeen euh, wootee ci 88 628 89 90 bu ko defee billet Màkka bi tamit bu ci seen chance nekkee ngeen mun ko am ñi nekk ci Facebook live bi tamit ñoom Euh, bëgg nañ leen jagleel billet Màkka bi bu ko defee ñoom it ñu euh, mën ci euh, bégalee seen ay wayjur moo xam seen seen wayjur wu góor wala seen wayjur wu jigéen parce que ku ci ne ci xale yi bëgg na yóbbu ay wayjuram Màkka donc yéen i tamit ci ngeen bokk na ne dañuy maye deux cent cinquante mille commentaires yi bëri na ku ci nekk mi ngi wane cofeelam ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc defe naa ni kon guddi gi jar na ko donc mun nga jël mun nga jël soxna si defe naa sa sax soxna Aïcha la tudd. Ah. Aïssatou Aïssatou euh, Ba. li nga def rafet na ah. Aïssatou Ba. bokk tur bokk san ah. <laughs> ko de. nen ne moom wóolu ko de. Ah. wóolu moo de. est-ce que amul compte fictif. <laughs> <laughs> léegi joxel joxel début numéro bi ma xool. surprise parce que am naa numéro bi yëpp joxel début bi rek ma xool. waaw léegi ci lañ bokk. léegi kon ñu xool ba xam nene la wala du moom. moom en tout cas numéro de téléphone am mi ngi commencé 77. waaw 817. non amul boobu kon du moom. kon du moom. <laughs> déedéet. 817 am naa numéro bi yëpp boobu moom maa maa ko garanti du moom. <laughs> ak li ci topp. 53 ak li ci topp. donc soxna Aysatu Ba euh, moom mi ngi wane cofeelam ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nee na itamit moom soppey Ayda mu bàyyi mi toog la. donc euh, nuyoo bi egg na et puis itamit terale nañ ko terale nañ ko 250 000 ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. boo bëggee ma dolli biisaat beneen deux cent cinquante. ngay biisaat benn rek. Eh, waaw beneen deux cent cinquante boo xamante ne parce que dañoo war a dem tey ba onze heures quarante cinq ñu bàyyi gis-gis ñëw fii ak 11h45. Eh. surtout Ndiol Maka ngi nii toog. waaw waaw ah, léegi nag tey maama moom moom bés bi. fii ak fii ak 11h45 ban waxtoo jot nii. fi mu toll nii maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci. 11 11 11. waaw fi mu toll nii des na ma 45 minutes rek. fii ak 45 mën naa maye billet fii ak 45. mën naa maye biir màkk bu ñu eggee. alamina taala qadimuka naada ya rasulu taala رسول إله العالمين تعالى قديمك نادى يا رسول تعالى قديمك نادى يا رسول فلا أراه فقيرا إلى غير الإله تعالى قديم بأقصى الغرب يدعو محمدا وليس يرى غير الرسول ثمالا بين قديم ثوى في الباب وهو مؤمل يابا كريما وهو جير أطالا كريم السجايا واسع الجود ما تراه لضيف كريم قد اجاد منالا ففي كل حي قد قبضت بنعمة وإني كشاس قد أرم نمالا عليك صلاة الله ثم سلام صلاة ترقينا إلى الذكر والحب صلى الله عليه وسلم ayca kon ñu mayewaat beneen deux cent cinquante mille ne ne ci jotaayu